saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Ama Baldé ma doon tubaab fini Ama Baldé ñibbi na ca Paris la France INSEPS la fa séene préparé combat moom Ama Baldé digganteem ak Modou Paris la koy préparé bu dee Modou roi des arènes moom la mu def mooy bato dem bato costé Ama dem ca France ma jóge États-Unis dellu si Sénégal Ama à l'INSEPS de Paris Modou de retour des États-Unis lii nag mooy toq su bënn saan baréer bu Modou Lo Ama wàcc bu saison bile saison bii lay am kenn du ko puus moom Ama Baldé xam na ne digganteem ak Modou Lo ay moyens dëgg moo koy def ba muy laaj 100 dañoo jàppoon ne bëggu la bëre waaye biñ ko fayee 90 mu xalaat INSEPS ak ay technicien boobu lañ xam ne Ama doful moom Ama Baldé ay expert la recruté fa séeré préparé ak ñoom ñii seen xam-xam mu ngi màcc ci lutte gréco ñeneen ñi seen xam-xam a ngi màcc ci boxe journal ba xam le ne même bu dee Ama Bordeaux gis fi digganteem ak Eumeu Sène bu yàggul gis nañ ko ci digganteem ak Balla Gaye 2 bile dana am moom weesu nañ dimension boobu Willy Nicolay doomu Luc Nicolay indi na ci ay leeral yu leer nañ sama objectif ba ca njëkk mooy sama papa génn prison ba mën a ñëw organiser waaye njortu nañ ne même fi nekkul mën nañoo àggale ay naaram te combat bi na ñëpp xam ne dana am le 26 juillet buñ ca àggee moo du problème dana juboo ña staffu Boy Niang ak Jamaïcain moom Jamaïcain la mu xamle mooy staffu Boy Niang prix bi ñu fixé dafa seer ñoom montant bi ñu réclamé dafa seer ba yegg ci lool loolee la Jamaïcain xamle dafa seer nag tekkiwul ne mënumaa taxawal bi le combat waaye maa ngi négocier ak ñoom bu ñu waxee lu jaadu danaa leen jox avance am naa ay partenaires yu ma mën a gunge damay jël lépp teg ko ci loxo yàlla la ñu tegoon seeni loxo ñoom promoteurs ya CNG nee na ko foqet nangu na papa pëng jeex na tàkk dootu fi am balaa fee benn face à face di amati danañ régulariser combat li ni mel moo tax association des promoteurs fas yéene jàkkaarloog CNG altine bi ñu dëgmal ñoom association des promoteurs ci njiital Pa Abdou Fall dañoo fas yéene jàkkaarloog président Alioune Sarr bëgg mooy ñu teg lépp ci yoon mu bañ a am bras de fer ñii nag faaw bras de fer am seen diggante ñoom ñaari Siteu yi Siteu bu Ngor ak mbër mi ñuy wax bu Siteu faaw ñu laale Jax production moo taxawal combat bi jàpp ko ci mois de juin Siteu bu Ngor dafa taxawaloon combat Anta ak Papa Yada 2 le 31 juillet 2019 la leen convoqué woon manageru Anta ñëw manageru ñëw boobee la jot seeni kase ba signé Chris Cross rax ca dolli ne toog na ñaari weer ñu signalé ñu ne suñu adversaire daw na boobee ba léegi bëgguñoo def déclaration waaye Fallou Ndiaye daa génn ci média yi def déclaration ne Anta yoreel na ma combat tànk bëréwut sama combat dootul bëre loolee moo tax man nijaayam Chris Cross a génn leeral li may leeral mooy Anta a taxawal combat am ñëwal seet si ko dañoo bëgg Fallou Ndiaye xam fekk Jax mu fësal ñetti date yi ko dese ci saison bi mu ne le 16 février avril ak le 5 la dese ngir dóor ay journée ñetti date yooyu la dese ngir boucler saison bu dee ca janvier le 16 mars lañ fas yéene amal seen gala teg ca fukki nag ñaar benn saaku ceeb ak 80 000 francs bu dee ci dimanche bi ci adresse Senghor Doudou Niane Djilass production moo woote teg 1 million jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci yéene